jullit yi gannaaw ba nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa moo ngi baal xaq ñépp tey baal xaq ñépp yal na yàlla boole jëggal di balu xaq ñépp tey baal xaq ñépp di ndokkeel bokki jullit yépp ci gan gu mag gi nga xam ne daanaka agsi na ba noppi yal na nu yàlla dimbali may nu wér ak tal ban man koo jëfe na mu ko santaane ba am ca ngërëmam euh, gan gu nekk nag ak nañu koy séentoo ak fa ñu ko fas yéene dalal ak nañu koy ganalee mu mel ne gan goo xam ne at mu jot wenn yoon lay ñëw te xam nga kañ lay ñëw war naa yomba waajal ndax fàtte moom du ca am loolu danañu ci dikk waaye gan gi mooy kan mooy koor koor nag yax bi li muy tekki mooy téye sa bopp rek téye sa bopp bu ñu demee ci alxuraan danañu ca fekk tabaraka wa taala di ñu nettali yu yàgg ya ya nga xam ne ab ay julit ab julit daf koy soxla ndax mooy téeréem bi nga xam ne ci la dëxëñ lépp lii mu leeral ko nañ lii it mu bàyyi ko noona ngir bëgg a ubbil buntu jullit yépp ñu gëstu ji ko waaye danañ ca fekk daal fu mu ñuy fàttalee mbirum Seydina Isa alayhi salaam di ko jaare ci way juram Maryama alayha salaam ne moom it ci gaa yi la ndax suñu borom wane na wane woon na ci moom kawtéef waaye daal kawtéef ga lañ cey jël tey mooy bi ko suñu boroom xoolee ba settantal ko war a feeñal ci moom kaawtéef jëfa jox na ko ndigalul jëfandikoo baatub koor mooy fi muy waxe ci alxuraan ne bi mu yablee ci moom ba war a jaarale Seydina Isaa ci moom alayhi salaam di wax ba agsi ci fi ko aw mat dikkale mu ne bi ko mat bi dikkalee moom kenn moo fa nekk ku ne xam na ne ku toll foofu soxla na taxawaay waaye ba mu fa tollee ci ak nite dem na ba naan ay waji lii su ma ko xamee woon nii ak a neexoon ma faatu bala moo agsi fii ndax metti waaye suñu boroom moo yab la ci moom ne ko ah ñii ne lam yoroon moo wax ak moom suñu boroom ne ko bul tiit bul jàq jàmm rekk ngay am ba yàlla dogalee mu mucc naan fu may jële lu ma lekk ak lu ma naan suñu boroom wax ak moom ci lu mu yëgul waaye daf ko caa xiir ne ko yëngalal ëkk tàndarma googu rek laal ko gësum ko tuuti mu ne ko yag-yag mu daldi di bi fa saasa daldi di tóor tóor daal ñor fi saasi mu ne ko daggal lekk tàndarma ju tooy lekk ak naan la boole <clears throat> mu ne ko lekkal te naan te ne cell nit ñi si gën a bari ay wax waaye suñ ñëwee bay wax yow ne leen lii ma lay wax rek jàmm ci jëkk mujj ci inni nadartu lirrahmani sawma tey day li ma fas yéene mooy damay woor woor ci lan ci wax duma wax ak nit falan ukallima al yawma insiya ba coow la bare fa atat bihi qawmu qawmuha taxmiluhu yaa maryam laqad jiti shay'an fariya yaa uxta haarun maa kaana abuki imraa sawin wa maa kaanat ummuki bagiya lii num la mën a dale ginnaaw nee na nësër naa tey nësër am na àtte ci diine duma wax tey ñu ne ko lii ngi def de kenn su ko def ndax yow say mbokk ak mbokk ak maam ak ba ci wayjur yu yàggu di rek xamuñ ci woon ci ñoom lenn yu mel ni yi ngay def nii di am lu ñuy junj mu joxañ leen ne laaj leen kii nga xam ne moom laa indi àdduna tey ñu ne ko kayfa nukallim man man kaana fil mahad sabiya xale ba na relet ne inni abdullah aatani alkitaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kunt wa awsaani bilsalati walzakati ma dumtu xaya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya fas naa yéene du ma wax ak nit tey nag mooy woor tey damay woor du ma wax waaye koor gi ñu jublut nag mooy koor gi nga xam ne moom nit day téye boppam tàmbale ko ci tibb sex ak fab naanu boole ko cëram yépp li ko tàmbalee fi jant bi fajar di feqe ba jant bi so mariex boole ko yéene li ko wuutale koor yi yu baree bari walla yépp sax mooy moom daa am waxtu am fu muy tàmbale am fu muy yem am ay bis benn wenn yoon lay ñëw at mu nekk wenn yoon par at waaye kañ buñ tolloo ci fan yi ñu toll rek koor gi tàmbaleewut ci buñ ne weer yi feeñ na waaye mi ngi tàmbalee ci bu ñu waree séntu weer wi bu ñu ko waree séntu lay tàmbali waajtaayam moom lañuy ñuy jëkke benn ñu gis ko kenn ku nekk gis ko wan ko moroomam walla ku wóor ku ñu wóolu ku wóor ñu wóolu ko wax ne moom gis na ko su boobaa nag la koor di tàmbali xanaa ci diine des na laaj lu nekk ci néeg yi diine am tamit juróomi néeg ana fu mu dugg bokk yi koor ci weeru koor woor weeru koor bokk doonte woor am na ay xaaj ñaar ba ca gën a ñor ba jur yi ci des yépp mooy weer mooy woor weeru koor gannaaw bu ñu waree nag ba ci suba si kum neex mën ngay woor at mépp ba mu des bisu tabaski rekk waaye bii nga xam ne moom ngi tax a jóg tey mooy bii nga xam ne moom dañ koy dugal ci benn ci néeg yi nga xam ne moom la lislaam di àttee ku ñu laajoon tey koor lu dib atteem da nga naan waajib la waajib farata kum war ku tuddoo ab jullit rek li feeg yaa ngi tuddoo tur wi mi gàllu ci saw loos bokk yi nag foofu mat naa taxaw tuuti loo xam ne wenn yoon lay am cim at ku ko fekke ba weesu xamisu des na ko fekke watam ndéet ku ko fekkee woon daaw fekkee war ko ren muy jub si nii ne ko waajal ndax xamut sax fii ba ba ñuy war fu koy fekk kon laxas ba weesu moom na weesu ñu rëcc ko xam ne weeru koor du ay caaxaan ku dib jullit di tuddoo tur te buñ na la doonoo ko mu namm laa naqari na xam ne weeru koor a ngi ñëw bokk yi ba muy wàcc booba pas-pas bii ak dëgër gi jullit yi am ak xam giñ xam àgg guñ ca woon waaye dañoo jóge ci lu metti muy génn leen màkka dëkk a génne yonent bi sallallahu alayhi ci ndigalul boroomam la génne waaye ay sabab la am ña koy topp topp ko ñay des des ñu ñëw amuñ fa ndey amuñ fa bàyyi amuñ fa dara ren ba ca déwén sa boobu moom julli am na li ko tax a rëy bokk na ci bu nit ki ne yàlla kenn la yonent bi nawama rek julli gàll na ci woloosam julli nag ni mu toll lu ca topp ci ab lim euh, donte as warante am na fi ñaan moom as ak ku ci jiitu waaye moom daal ginnaaw dañuy julli tudd ko moom doon tudd ko ndaw ba yonent bi demee Madinal Munawwara ba ca déwén sa ba weeru baraxlu am ñaari fan ba ko ñetteel ñetti fane baraxlu la ko yàlla ne demal ni jullit yi kutiba alayhim siyaam yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaam ñu ne nuñ koy defe ñu ne da ngay xëy ne ngam ba ngoon jot doo lekk doo naan muy lu bes peq ci seenug dégg peq doonte diine yi ko jëkkoon moom te bi mu ñëwee daf leen a folli am na ñu ca xamoon woor waaye daal nii ko yonent bi jàngalee moom bokkut ak genn koor moom bokk yi am na koor yoo xam ne da ngay mos tuuti wala nga tànn ween waxtu di ko lekk di ndékki te doo añ wala ngay añ te doo doo doo doo reer waaye moom bu julli suba desee tuuti ngay gàllaxandiku tuur bàyyi ba jant bi so nga ne ngam doo lekk doo naan ñu di koy def ba mu yàgg ñu boole sa doo xool loo wërta xool doo laal loo wërta lool laal ci say loxo ci say yoxo doo dégg loo wërta déglu doo dem foo wërta dem doo wax loo wërta wax kon du ay caaxaan yax bu ne fàngale ci alxuraan boo xam ne kenn weddiwut doonul doonul lu luy xóot loo xam dañuy gëstu ba xam lu ci yàlla bëgg a wax ni ko ayaat yi bare déedéet dafa leer nañ ayaaman maadudaat ay bis la yoo xam ne su ngeen ko jëfee nii ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale da ngeen ci mën a amee taqwa taqwa nag dara jiituwu ca Euh, wéet di xalaat yàlla wéet li ko di ko xalaat kon koor bind bu leer naññ la ci bis yooyu nga xam ne nit dana gis lu muy lekk man caa lekk te kenn du ko ko tere mu xalaat diggante ak yàlla loolu bokk yi jullit bu nekk war na caa tàggat boppam ndax bisi nga ñëw bi yàlla di wax ne kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda koor mën na ko misaal nit ki mën na koo jànge ci koor bis ngi ñëw kenn ku nekk damay wéet ak yow ba nga defee ni yow képp a am ndax laaj yu tiifoo te laaj yi suñu boroom yowmal xiyaama ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ne amul wàññiku maanaam doo wax ca la nga laajoon dara laaj yi bés peq ngay dégg te moo ne loolu ku dund tase ak lislaam ay layam mën naa yomb lool yàlla nañu ci yàlla dimbali waaye bu ñu demee ci <clears throat> sunna yonent bi yoon wi mu xàlloon sallallahu alayhi wa sallama doonte dox ba muy lim ci xadis bu siiw boobu ka fekk muy waxtaan mu sañ lool toog ci kanamam toogin woo xam daal jaaxal na ña fa toogoon ndax sañ-sañ bu ëpp fabi yoxoom teg ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa laaj ko lan mooy gëm yàlla dëgg-dëgg mu wax ko na muy mel gëm na yàlla ko am la gëm ne yàlla am na ay malaayika yu muy yónni gëm téere yu jëkk yi yàlla doon wax ak nit ñi ya nga ca xam ak ya nga ca xamut yépp gëm yonent yépp ne ndaw yi suñu borom lañ laa nufarriqu bayna ahadin min rusule gëm ne bis penc ngi ñëw gëmub dogal bu melee na la gënal ak bu xawaay safaan ak loola lépp nga xam ne yàlla mooy dogal kooku ne ko loolu de nii nga ko waxee ni la demee de nit ñi tàmbalee jaaxle di laaj te lu ñu la wax nga ne dëgg la ñu ne ko lislaam jii ngay wax ak gaa yi nag mooy lan waaye ba muy lim lislaam boole na ca ku dib jullit fa la weeru koor fekk te nga wér mbokk mi doon na ko junj léegi yàlla na ko yàlla fay wér wér gi ab jullit di wéri di ci weeru koor nag ba tax koor wàcc ko lislaam moo koy wax walla boog xamkat yaram yi xew léegi ku ca di jullit wala sax du jullit waaye yaram kese kese moo ko ñor ci jàmm bi lu mu wax mënees na koo doy loo ba xam waa ji mën naa wor wala mënta wor waaye ngant yi tax nit du woor daal charia al islamiyya moo naan nangam ak nangam ak nangam lay doon du doon loo xam ne nit ki naan ni ma foog nekk ma jàpp nekk ma yaakaar na rek maanaam zanna wa axwatuha kon ba muy lim li ma leen ca woor weeru koor su dul ñaareelu tomb yi di ñetteelu tomb waaye lu ci mën a am daal ci mag ñi la bokk waaye ba ko yonent bi waxee ba ne kutiba aleykum siyaam am na ku ne ca ràllet ne ko waaw ndax weeru ko rekk la yonent bi ne ko déedéet ah kay weeru koor rekk la ndax dane ko ndax am na yeneeni koor mu ne ko déedéet weeru koor rekk la xanaa bu ñu waree rek nga nga umaat yow ci suba sa ba ca bisu tabaski nga dogaat wéyaat bu la neexee waaye weeru koor rekk a ca war moom ba yàgg mu ne bàyyi leen laaj ndax su ma ne woon cell wala ma ne axakay da ngeen teg seen bopp lu ngeen mënut laa tasalu an ashyaa in tubdalakum tasuk li ko tax a bokk ci mag ñi nag mooy ku xëy xëy bàyyi ko te amul lenn ngànt moo bàyyi julli ñoo bokkub àtte kepp doonte mënees naa bañ a jaar ak moom fa ñuy jaar ak ku bàyyi julli ndax par nit a koy def waaye dañ koy atte daal atte ku bàyyi julli nañ koy def moom te loolu suñu mbag bi jàngale na ko ci ay téeréem ku dem ci tasawudu sigaar wala nga dem ci tasawudu shubaan da nga ko ca fekk mun a wét kon bu ñu xamee ne weeru koor wàccaay bi nga tàmbalee ci séentu weer na ko nit ñi def yitte bu ñu ca duggee it nañ xam nañuy woore mooy ni ñu bàyyee lekk ak naan ci bëccëg bi ak yañ sañoon yépp ci bëccëg budul weeru koor nañ xam ne noonu lañuy ñuy woore euh, su ko defee nag am na ngëneel yu ci suñu yu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booba jullit yi xamaguñ ko niñ ko war a xame dëgg-dëgg <coughs> donte santaane suñu borom la bu jullit bi sañ bañ sañ bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee yàlla nee na nit ki li muy def lépp lu ci nekk sañ naa taxaw tàllal loxo yàlla ne ko fay ma mu ne ko lu tax mu ne ko ba ma koy def damaa toog ba ba sama xel ne yar ci yow rek ma defal la ko yàlla ne ko waaw waaw loolu de wax nga dëgg am waaye nag nee na ba mu des weeru koor weeru koor moom yàlla moo xam lam cay fay jullit bi yàlla nañu dimbali ba ñu defee ko noom ko santaane nee moo koy fayal boppam du yebal kenn bu koy fay du calculer li nga defoon nu mu toll day tibb di ñaag di la jox daan ne lii tax am pay suñu borom ci koor nag mooy ku woor na jàpp na def koor gi pakk pakk pakk mooy li xarekat yi daan yor lu mel ni palaat lay doon ab layu bu caawee moom bu ñu ko bëggee caw mu tàllal ko mu dal ca palaat ba walla layu ba daan ne kon koor ci ab julit pakk la na ci jànge lii bu wooree bu ñu umee rek mu génn ci caaxaan yépp caaxaan nag waxuñu yu mag yi waaye kaf ak ree sax bu mu ko fontoo bu mu xuloo bu mu saaga buñ ko saagaa wala wala ñu bëgg a xuloo moom sax na leen wax ne man dama woor sëñ bi damaa woor nga baal ma damaa woor dal ne nag ku woor yendoo diñe diñee bokk mooy bañ a añ yendoo bañ a naan ndox lii dem ci gémmiñam daal ci ndox mooy gàllaxandiku di jàpp kese loolu moom bari na ci ñoom ñu sàggan ñoo xam ne ñakk fonk seen gémmiñ cig cat day tax bu jënt yi wëlbatikoo rek kum jublu mën ngaa sakk say bakkan waaye yonent bi nee na yàlla nee na loolu bu mu leen ko yàqal ndax xet googu yi génnee ci gémmiñu koor moo dàqal yàlla fuuf bu yomal xiyaamee xetuk misk wala xetuk laj ko lañ giñ xam ñoom daan ne ki woor nag bu ëllëgee ki woor am na ñaari mbégte yoo xam ne kenn mënu ko caa wóotu bokk yi danañ xam nañ ci diine ajale nit ajale ko dem def la muy def féetewoo coono ba yéene ko yool ba mu wàcc ko waaye woor nag moom neexut a defal nit doonte ma des naa fayal nit ku yoroon borob koor waaye nag bu dog jotee la muy yëg kami kam kami wooral mënu ko caa yëg moom fii ci àdduna àllaaxira moo tax yonent bi nee yàlla nee na ku woor am na ñaari mbégte yu muy bég yoo xam ne kenn mënu ko caa wóotu bu jëkk ba mooy cëg bu tàng bari ngelaw ñi tàmm ventilateur wala climatiseur courant coupé ñëpp yendoo comaaytu ba ñu naan juróom minute ci des ñu taaj yëpp bokk yi foofu ba ba ñuy sone wala ñu fëgg wala ñu wax ne dog jot ma ndiggante soo su ñaan dog jot na ba mu waaxu jëm ci tàndarma ja waaxu laa ko tudde rek mooy gaawantu mbëkkee ngi moomu foo xam ne fii li ci nit di yéege kenn mënu ko wax kenn lu gone lu coowul gone bare bare kenn du ko dégg ndax bëgg a dog waaye nee na yowmal xiyaama lay raw yàlla ñu ci yàlla jotale daan koor it bokk na ci lu yàlla dencal nit ñi ci moom ëllëg moo ko alxuraan mi nga xam ne ci weeru koor la jëkk a wàcc bu ëllëgee ba nit ñëpp tiit kenn ku nekk peese xam la muy am kenn ku nekk xam fa mu jëm am na ñoo xam ne mën nañoo rafet njort ci ne ñoom aljanna lañ jëm yàlla nañu ci yàlla boole waaye nag bu ñu sañoon àjjana sangam la ñuy dem te lañ doon am am nañ ko ba noppi am ñoo xam ne moom peese nañ mataluñ te poids bii ñu yor buñ ca yemee mën nañoo dem ci geneen kër yàlla nañu ci yàlla musal su booba yàlla day dem ci registre koor ak alquran xool ba xam nu nit ñi defoon ak ñoom koo xam ne koor gu masa fekk ci àdduna tam fekk mu wér woor na ko kem kattanam yam ca munta woor ay bis ba koor ga jàllee fay na ko gëm alxuraan ak lim indi lépp te daa ko jàng kem kattanam te tënku ci ateem su boobaa suñu borom day def koor jëmm ne ko loo xam ci waaj yi mu ne kii day e, tabarakta wa taalait subhanak wa bi izzatik bàkk ko daal ni mu ko war a bàkke waa jii day e, man mii maa taxoon bu ramadaan agsee mu ne ngam du lekk du naan bépp bànneex bu ko daganoon it ci baraxlu wi wala kore gi du fa sax yendu ba xelam da ca dem loolu dama mën naa koo seere ci moom yàlla ne ko ah léegi loo bëgg ma def ko ci moom mu ne ko tin ma ci moom tin ma ci tin tin mooy ñii ñuy jàpp di leen yóbbu dugal leen ci fu xat ñu nekk fa ak mbooloo bu dee jamonoy léegi dañu daan kar nit ne ko xamal ko ne ko ma nga barab sàngam kooko daal di lagg dem na leen kee xam naa ko lii laa laa ñu daal koy bàyyi loolu mooy tinu yàlla ne ko ah yow de ku la taxawoo woon noonee mënumaa am na ma koy def kon àndal ak moom dem fi nga bëgg a yóbbu moom fi nga bëgg a ànd ak moom waaja bàyyi fay moroomam faw mu bàyyi fa aw nit ndax dana fekk aw nit dana fa bokk ca ñoom fay bàyyi am na ñoo xam ne yàlla dana alxuraan loo xam ci waaj yi alxuraan ne ah bu weeru koor wi koor mii li mu wax de lu wér la ndax bu koor masaan ñëw du lekk bëccëg du naan du def benn luy niroog bànneex waaye bu guddi masaan jot nag ba nit ñi ne baasin yàlla baasiin yàlla ñii fas yéenee nelaw ñii fas yéenee dallu danaan fojjet bu dee julli mu julli te kuy julli alxuraan ngay jàng su loola mu jël alxuraan di jàng di settantal aayaat yi ba ba muy nelaw yàlla ne ko loo ci bëgg mu ne ko tin ma ci mu ne ko àndal ak moom daam bokk yi ku weeru koor ak alxuraan ànd tinoondoo te kenn ku nekk am may boppam xelam dana dal te fii lañ koy faggoo fii lañ koy faggoo bokk yi bisa ngi ñëw boo xam ne alxuraan a ko wax yawma yafirul mar'u min axi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa baniin li kulli mriin minhum yowma idin chanun yugnii bisa ngi ñëw léeg nga wutali benn waaye ne ko yaa ma ne woon nanga mën la dama la mas a xam dañ koy waxante ba ci ba nit da koy wax baayam wala baayam wax ko benn mu gën a jub baayam ni anbiya yi ak seeni baay yenn yi ñenn ñi ak seen baay ñenn ñi ak seen doom am na ci yonent yi sallallahu alayhi salaam ak seeni soxna ak ñu àndoon ak ñoom te ànd ga wérut ndax mënoo ànd ak nit mu jëm penku nga jëm sowu ba noppi naan moom ma ànd ku ànd ak nit fu mu jëm da nga fay jëm moo tax bis boobu lu mat a waajal la te fii dong lañ ko mën a waajale dëgmal ni ne ah diw dee nga ne di ko yàkkawle ku mu romb la jàll nga ne ko déet xanaa kii diw mu ne man a kay ah diw loo ma waxoon mu ne lu ma la mas a wax man kay fii lañu mas a gisante yàlla xam na ko yàlla na déet man kay bu leen ma ci tudd bu leen man kay bu ma tudd nag ku nekk kay ñëw wax ak man li muy wax rek loolu nag bokk yi fa façon ngi ñëw boo xam ne muy weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne it euh, bu ëllëgee ñay dem aljana sax seeni aljanna danañ rawante ci kenn ku nekk nu mu jàppe woon koor gi ak nu mu ko taxawee woon nee na am na bunt boo xam ne rayaan la tudd rayyaan nag ku fa dugg aw maram day jeex ar ray mooy suuxat ci mbay di wal ndox mi muy dem ci garab yi di leen fa fekk kooku ar ray lay def kooku rayyaan la ci garab ya buntu boobu nag rayyaan la tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee bu yawmal xiyaama buntu boobu day ubbiku ci ñiy dem aljanna dañ koy ubbi ci buntu aljanna bokk waaye buñ ko ubbee dañuy laaj ana ayna saa'imuun ana ñu daa woor kenn ku nekk mën naa xam boppam ndax ku nekk yowmal xiyaama day am mandarga mandarga bu ñëwee ci alxuraan muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujjada yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan siimaahum fi wujuhim min athari sujud mandarga mandarga yi nag bu ñu ne ana ñu doon woor ku ci bokkut mënut a wuy ji ndax du dégg du dégg paas bi du dégg mot de passe bi su ko defee ñooña suñu duggee ba ba jeex takk ñu woote woote kenn ñëwaatut nit ñi def buntu avion boo xam ne mu ngi bëgg a décoller passage yi jëm dëkk sangam léeg-léeg sax ñu jaar ci turu diw passager diw jëm barab sàngam wax nañ ko benn yoon ñaareel bu ñettee dañuy tëj bunt bi avion bi dem ñëpp dugg ñu tëj bunt ba keneen dutu duggaat wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi nag kon ci tënk koorongu noonu ci mag ñi la bokk te dëgmal si na mi ngi tàmbali ci séentu weer wi ñaareel ba taxawu ko ci wax ak jëf sëñ bu mag bi sax euh, damm na awlaay bu ñu demee ci mbindam danañ ca fekk bi muy lim ponk lislaam yi benn bu ci nekk mu way ca ay way yu leer nañ njàng mu gàtt te yomb bi muy wax koor moom ab àtteem ñaari yaari bëyit kese la te man ko tàmbalee siyaamunaa ñun jullit yi ginnaaw suñ ba bind siyaamunaa ñun suñu suñu koor ñun jullit ne ku ci génn yaa ci génn sa bopp siyaamunaa lahu faridataani bila ziyadatin wala nuqsaani koor daal ñun jullit yi suñu koor ñaari cër la am ñaari cër maanaam euh, ñaar la ci mënta ñàkk yoo xam ne yomb a xam amut dolli amut wañ yaari farata niyatuna wa kafuna an muftiraat li wajhi baaqin mutimin bi tayibaat bu jëkk ba mooy fas ko yéenee def ci buñ ne weer wi feeñ na nga fas yéenee woor weer wépp fas ko yéenee woor fas ko yéene doonte am nañu wax ne bis bu set danga koy fanaanoo am na ñu ne déedéet ku dugg ci weer wi moom benn bis man na yéen a jëkk ja mën naa weñ moo ci jiitu fas ko yéene bañ a topp rek dem ci kër fekk ba mu fay xëy wóorutoon gone ya sax ku laaj mu ne ko damaa woor mu ne ah lii de wax dëgg yàlla kersa la nag man de kon dama woor kon moom munta dabi koor ga xanaa bu ngoonee mu fas te jéem a fay fas eh, jéem a fay fan ja ko wees waaye fas ko yéene moom mënut a ñàkk dangay dégg sax ñu naan maa ngi dem barab sàngam fas yi loola de am na njariñ su fekkee ka yi ñëw ñu di ko fa fekk dana leeralal nit ñi àtteb koor ak ku ko bàyyi te tay ko te amul ngànt su boobaa jar na wuy ji ko waaye barab sàngam lañ koy def fase moom amul benn atte ci diine bu ñu xam lam doon jëriñ daal mooy kafay dajale nit ñi wax ak nit ñi lan mooy koor gi luñ ci war a def ak luñ ci warta def luñ ci jéggli ak lu koy yàq luñ ci si su boobaa jar na dem ndax mënut dem kenn ku nekk ci sa kër mu fekk la fa wax kook yow kon fas ko yéene mënut ñàkk ñaareel ba mooy fexe ba lépp lu ñu ne dee dog koor rek nga wan ko gannaaw loolu ci faratay la bokk ci farata la bokk fexe ba bañ a dog ci koor gi ak lépp lu dog loo nit euh, sëñ Falilu Mbakke mi mësoon nekk Tuubaa moom ko moom daana wax ci bis bi nga xam ne ci la nit ñi di fas si ci pénc mi bokk na ci lan daan wax suba la koor gi tàmbali euh, booba li waa dëkk bi amoon ci lu ñu gën a fonk nga xam ne daana ñaanal nit mu fekke buy mat muy jumaa ji daana wax ne ah koor gi de suba lay tàmbali te liggéey jumaa jaa ngi nii dëgmal na ñu ngi ci digg bi suma baa ngi tooy waaye bu subaa ku mën a boole liggéey beeg woor na ko boole ku ko munta boole na bàyyi liggéey bi te dem woor te ku amut loo woore ñëwal ma jox la ko daal di dagg lay yëpp fàq lay yëpp bu ñu demee ba am fukki fan daana jël rajo bi ci biir këram rajo bi dañ ko wékkoon ci jumaa ji foo toll di ko dégg mu ne fukki fan yi weesu na waaw leen góor suba la tàmbali fukki yi ci dégg bi la ma waxoon laay waxaat ku man ku ko mën a boole liggéey bu mu mën a jàpp dëkk bii ñu nekk fi ñu ko daal liggéeyal la bokk daana fi yónnee ne ku ko mën na ko boole ku ko mun wàcce naa ko ba koor gi jàll ku ko man mën a boole ndax lii santaane suñu borom sañ bañ te lii san santaane la boo xam ne kum kum kum soob def kum kum soob bàyyi te ku amut loo ume kumteel fukki fan yi ci digg bi ñëwal ma jox la ko ba ba ngay woore kon boog loola mooy yeesa ka yeesaat rek yàlla nañu ci yàlla yóbbu jàmm te ñu am ci tawfiq ba mën koo taxawee ni ko suñu boroom santaane ba mën a jot ci ay yoolam